donc Sénégal ñoom ci seen bopp ot moo ñëw assemblée nationale il l'a avoué mu ne ma sur deux cent mille sénégalais jeunes qui cherchent de l'emploi nous on ne peut en donner que vingt mille dix pour cent moo ko fa wax. le le marché de l'emploi mën a absorber. oui en faisant des bricolages créer ay ASP des emplois verts ak yooyu voilà pour moi c'est la marque de l'échec parce qu'on pouvait faire autrement ci yàgg naa leen ko wax. yaa ngi may dégg. Sénégal xam nga la mu soxla c'est plus difficile. Hmm. parce que ça demande plus de discipline. def lu la neex quoi xam nga Sénégal jàpp ne waaye je dois faire ce que je veux c'est ça ma liberté. faire ce que je veux yàlla moo ko moom wax naa leen ko tous les mais d'abord Sénégal mu soxla sa appréciation euh, du bilan de Macky Sall. mais wax naa ko dans mes questions kii depuis 3 4 5 6 ans. donc man duma perdre sama minute yu ma des. ni pour loolu mais vas-y vas-y non mais nee naa leen le bilan euh, kenn. partage ça avec nous xam nga xam mais mooy lan. un ñaata emploi la koom-koom bi di créer c'est dix pour cent ça veut dire sur douze ans y a au moins un million de jeunes sénégalais qui sont en rade parce que si deux cent mille yooyu wala trois cent mille mettons mu jël deux cent mille parce que ot loolu la wax mais gars yi neen leen trois cent mille la léegi vingt mille quatre-vingt mille yi buuxante dans les secteurs informels mais tu as au ou qui ne fon rien, qui dépendent de leurs parents ak yu mel noonu multiplié par douze c'est presque un million qui sont en rade gis ngeen koy gis ci kër yi looloo fi nekk c'est un échec patent et c'est ça l'objet de l'économie économie amul leneen lu dul jàppale doomu aadama yi góor ak jigéen ñu mën a tekki am njëriñ waaw seen dund gi mën a ce qu'on le bien-être là loolu mooy objet de l'économie ben ñaareel bi tout est à Dakar yow mën nga toog fii te di imaginer Dakar quinze millions d'habitants fu njëm te fan la njëm directement avec leur histoire de Diamniadio buñ joon bu mu ñëwee assemblée nationale premier ministre wax naa ko man ko vous mettez toutes les tous les investissements à, à Diamniadio il y aura un appel tout le va venir ici et les autres nee naa leen depuis 2007 il nous faut des pôles régionaux de développement buñ ko caaxaani buñ ko caaxaani le Sénégal sa ne doit pas uniquement la région de Dakar même un peu agrandi à Mbour c'est pas possible ça va être invivable moom la ma tubaab bi doon wax 2015 les savants français la le prix Nobel et autres ou nobélisables ñu ne ma xam nga si en 2030 40 il y aura le chaos dans le Sahel avec trois zones de vie trois Lagos nañ jàpp ne mën na am zone de vie autour de Lagos ñuy wax bifurcation Accra Abidjan donc Accra Abidjan day nekk genre ou je sais pas moi bifurcation ou en zone zone économique Dakar point d'interrogation. Est-ce on y est? Bah avec Macky Sall on ou avec les autres la petits de l'APR là qui veulent être président quel ça va autre, être pire quel autre petit de l'APR ñooñu laay wax les petits candidats là xam nga xam nga faalewu ma leen <laughs> dama leen di dama leen di tutoyer te kenn du ci wax dara lu leer laa leen wax xam nañ nga xamante nañu mais APR bi amuñu benn vision dara la ñu amul avec les 3000 cadres là ils ne produisent rien du tout à la tête Abdoulaye Diouf Sarr xam nga sax mu nga fa ba léegi rien qu'est-ce qu'ils ont produit en 12 ans ñoom ñëpp ñu toog fi di xaar nous sommes non encore nommés mais ma yooyu na ñu liggéey non oh, mais attends c'est pas bon pour le pays il faut un peu de courage patriotique quand ñu ci bare état bi amuñu courage patriotique amuñu ko te état bi le peuple sénégalais ñu ci bare école publique ñu jógee comme man seen bàyyi fayeluñ leen ñu jàng génération boobu ñëwagul ñu fi nekk c'est l'école publique de Mamadou Dia et de Senghor moom moo leen formé de Amadou Mokhtar Mbow. ba ci man mi. ah voilà mosuma jàng école privée. mu ngoog alors donc on doit quelque chose au peuple nañu bàyyi caaxaan. l'Afrique c'est l'enjeu du monde ñu nekk fii di def ay di pàccanga di battre dans les dans les cérémonies c'est pas possible il faut qu'on arrête ce ce ce ce yëfu tàppale nañu ko bàyyi. donc yaa ngi may laaj bilan économique de Macky Sall je l'ai résumé en deux points déséquilibre au profit de la région de Dakar. chômage massif des jeunes ñu ngi ñu ngi jël gaal yeeg yooyu puis délabitation des ressources naturelles du foncier Macky Sall ci boppam nee na je vis dans une bombe foncière sous une bombe foncière Dengueler Bambilor on va aller jusqu'où avec ça Mbane Mbane il faut qu'on arrête ça c'est pourquoi moi président en 2024 je vais réformer le système nous avons un agenda de redressement du Sénégal du table à rasant hein Pas va faire comme Pol Pot en, au pa c'est pas ça. pas du tout ça, mais on redresse.